yéen bokki àdduna cheikh yéen bokki sénégal yéen bokki àdduna cheikh mohammed ibrahim di borom xam-xam bu mag bu kenn dul naa taple ci wàllu ñaan seet maanaam asraar ak wàllu fajum cosaan képp koo xam ne da nga bëgg a tàggalikook cigarette wala sangara ku rab jàpp wala ku mënta am doom wala ku néew kàttan ci wàllu sëy wàllu gàllaaj ngir aar sa yaram mbirum samp nit wala gàllaaju kër wala mu jox la daraja ju mat sëkk ak bayre seetil Cheikh Mouhamed Ibrahim loolu mbokk yi moom moo ci doy fii ci biir réew mi mu ngi nekk ci Nord Foire téléphone am 77 187 61. waaw Modou Lo moom Modou Lo Ama Baldé ñi dëkk Bombardier Eumeu Sène comme moo gën a jege si. Bombardier Eumeu seen waaw. waaw. Bombardier Eumeu Sène moom li ma si wax mu bariwul ndax ñaar ñoo xamante ne nii ñoom ñaar yëpp daal ay mbër lañu. combat la de. waaw combat revanche la tamit Bombardier mooy ñaan si revanche waaw loolu tamit damay wax ne. Mhm. na dal na teey sega moom mooy ñaan si revanche na dal na teey man daal loolu laa koy ñaan ndax Eumeu Sène mën na tromper ku ne Eumeu Sène moom daanaka mbër la was dëgg mbër la waaye Bombardier tamit na def teey rek teg ak teey moom bu defee teg ak teey moom yàlla suñu borom mën na ko dimli waaw. boo ko doon classé ci VIP yi. mbër yi euh. dàq bëri si làmb ji ko jox. bu jël premier jël deuxième de moom Eumeu Sène bu jël premier jël deuxième. boo may jënoo gis adversaire am. waaw adversaire am tamit sa adversaire la ndax adversaire bu jël ñu roi des arènes ñaari yoon kooku adversaire nga kooku moom kenn kenn kenn kenn ëpp ko wërsëg kooku si làmb la bokk boo xool sax muy jiite làmb ku am roi des ñaari yoon non man de gi man de gisaguma ko waaw. moom Bombardier si moom rek laa ko gis. combat benn Balla Boy Niang. Balla Boy Niang. Mhm. waaw tamit euh, balam booy ñaa ñaari technicien la ku juum mën nga daanu waaw ñaari technicien la moom ku juum mën nga daanu waaye daal li may wax Balla Gaye na xam ne si defet la jógee tamit na am na yokk entraînement yi entraînement yoom na ko yokk bu baax a baax a baax a baax waaw. Mhm. pour pour waaj booy ñaa bu baax. waaw pour waaj booy ñaa bu baax. waaw Balla moom Balla moom bu entraînement yi kenn mënu ko. Mhm. waaw bu nekkee en bu nekkee en forme kenn mënu ko. Mhm. façon bëre booy ñaa. booy ñaa booy xool. damay jàppane ne picc mën nekk sa kaw la day day këf maf la booy ñaa daanaka buy arrière nga foog nga dalaa ragal fekk na ragalu la booy ñaa technicien boo xamante ni technicien bu doy waar la waaw ku jàpp ne mënu laa daan nax nga sa bopp de waaw. Mhm. am ñu wax ne mu daan baal moo gën a ci moom daan Tapha Tine loolu da nga koy moo gën a yomb mu daan mhm. Tapha Tine. yàlla da yàlla dafa def ne moom bin bi mu yor yàlla dafa def ne moog Bombardier yàlla yàlla sunu borom moom rek la ko may si làmb ji waaw. gabari bi ñu yor gabari bi ñu yor ñoom rek la ko may si làmb ji. Mhm. waaw damay dëggal wax bu baax a baax dama koy dëggal de ndax Balla Gaye bërëm day mam booy ñaa tamit kuy mam la gën a soxla waaw kuy mam la gën a soxla. Mhm, moom la gën a soxla mooy ki taxaw boo taxawee moom da koy jaaxal waaye heure boo bëri si kawam daanaka mën nga fa jëlee gàcce de. ñoo na combat moo des Balla Giri bëri woon nañ bëri ñëkkoon nañoo bëre combat bi di yéexee par par mhm. boobu ñu war a bëriwaat mhm. revanche ah, ñoom ñaar kenn ku ne xam nga sa morom lu muy saf naxante la rek mhm. combat boobu naxante la képp doole tamit yaay daan gëm naa ne combat bu moom ku ku cëpp doole yaay daan Balla Giri ku cëpp doole doole yaay daan a waaw waaw doole ko nar a jeexal ko waaw doolee ko nar a jeexal. Mm-hmm. mais am na ñoo xam ne Balla moo daax a bëre. ah Balla waaw. Balla la jox bëre bi jox giri xeex bi. Balla la jox bëre bi jox giri xeex bi non non waruñu jox Balla euh, waruñu jox giri xeex bi bañ a jox Balla xeex bi Balla chaque jour boo xeexee mu xeex ak yow góor yàlla la de daanaka ñi mu xeexal ñëpp daanaka Bombardier la si xeexal daanaka mooy loolu waaye daanaka ñi mu si xeexal ñëpp dana gañe de. waaw dana gañe giri tamit tamit euh, nante la de boo ñëwee bëgg ko rek du yomb de force nga naxtaan ko de mm-hmm. soo nga naxtaan ko. combat royal bi foofu la ñuy jeexalee Modou Lo Ama Baldé. que le meilleur gagne kenn ku ne mën na daan sa morom ku jàpp ne combat bi mën naa yomb ci mën naa yomb ci yow nax sa bopp. Mhm. waaw. Mhm. jàpp ne Ama Baldé ëpp doole nax nga sa bopp ku jàpp ne Modou doole nax nga sa bopp ñoom ñaar ñëpp ken ku ne mën mën na daan sa morom waaw ndax Ama Baldé dafa jàpp ne mbër mu taxa si kanamam war na laa mën a riñaan daan la Modou Lo tamit mbër mu taxaw si kanamam jàpp na ne moom doo ko daan fii ba suba. waaw kon combat boobu noonu dina métti dina neex. Mhm. baar bi sifflé ne combat bi noonu a demee baar bi sifflé. baar bi sifflé. Mhm. ah man li nga gis ñu naan ñu waxee ko ñu wane ko ci seen de combat boobu su ma ndiwoon Modou Lo damaa ko bu combat bi euh, boor bi ne firit arrièreal mm, déglu booy bi rek waaye bu arrièreut a ah, mën na juum de moom Modou Lo boobu noonu dafa laaj arrière dafa laaj sax gin saako yi. waaw moog ama bi dafa laaj sax gin saako yi ñëwaat waaw combat boobu noonu combat combat naxante la de du combat xadar xadar de combat naxante la waaw combat naxante la de combat boobu noonu Modou xamee wuñ ko génn saako yi man su ma doon staffam loolu lay bàyyi comme ça bër bi ne fir muy dëgal boppam non na ko bàyyi moom nay dox si si xelam rek ko arrière naxanteeg booy bi rek waaw ndax fu mu taxaw moom booy bi ñu ko fekk kon loolu yomb naa bëre Mhm, yomb naa bëre da ngay naxanteeg moom rek ëpp la doole dàqu la bëre kon naxantal ak moom ba daan ko rek waaw. mais da nga gisoon ne Modou man war na mën a taxaw ci digg géew bi affronté foofu Ama Ama Ama Ama boo dëggalee sa bopp Ama boo dëggalee sa bopp mën na la daan ba ñibbi te doo xalaat. Mhm. billaahi. Mhm. damay dégg damay dégg ñu naan mënut a bëre waaye ku mën a bëree ngi noonu. muy Ama Balde. Ah. billaahi ku mën a bëre la ku jàpp ne mën mën mënut a bëree nax sa bopp ku mën a bëre la day bëre tànk day bëre lépp mbër mi mbëkk moo gën a bon mooy te loo mbër mi mbëkk ay tànk ay tànk mooy lépp bu la ci mbëkkee mën ngaa jaaxle de ba dëju de. Mhm. est-ce que conseil nga ko mu xeex ak Modou Lo. Ama Baldé waaw non conseil wu ma ko man su ma ko doon digal daal dinaa ko digal na ko cokkaas ko bu dee bërit nga dajeeg moom. waaw loolu laa koy conseil daal. Mhm. combat bi yàggee am na ñu wax ne bu combat bi yàggee Modou Lo arrangé parce que moo ëpp condition moo moo gën a mën combat bu yàgg ko Ama est-ce que d'accord nga ci loolu. waaye man na la combat yi bu yàggee ñu mel la arrangé. ñoom ñaar ba ñuy liggéey ba léegi. Mhm. te mënuñu am physique. ah kon bu ñu yeboo ñu bàyyi liggéey bi. côté musique bi nag tiitaloo ci kenn. waaw ah, côté musique moom tiituma ci kenn ndax kenn ku ne yor musique côté musique moom falaa falaa rek nañu wuti doole ku ci wut doole daal ba am doole li ki des moom matali la rek. Mhm. côté doole bi ko koo yaakaar mu avantage ci moroomam ci côté doole bi. non maanaam ñoom ñaar moom bu ma duggee YouTube li ma gis ñuy liggéey wax dëgg ñoom ñaar ñëpp a ngi liggéey mënuma leen a doole bi nag xanaa nga dalante mbër moom balaa nga xamante ni moo lépp doole ngeen dalante bu ngeen dalante di nga xam képp doole waaw foofu la nga xamee mbër waaye mbër moom mucc combat bi li ma su ma a def différence ci combat bi comme ko ëppante xeex bi yooyu kon la moo nar a def différence am daal li may wax man yàlla na am yàlla nit ni ko la yàlla na ko yàlla defal jàmm ñu may ko li mu bëgg waaw ndax nit dafa bokk si làmb nit promoteur bu bokk ci làmb la day dundal lam kon yéen nan nan ko may li mu bëgg waaw combat boobu daal su ma sañoon nit moom fu mu awloo combat bi waaw waa Sénégal nañ nañ ko fa awal mooy mooy mu tëgg combat bi mu jàll si jàmm kenn bañ si gaañu man waaw loolu daal loolu daal laa si am lu ma si sànni. macha allah moo ñu bàyyi la nga hmm. waaw diw di sant waa Bawol di sant sama coach euh, bay Bada di coach di sant euh, Père Balla di sant sama coach Maxi Père Maxi Bodi Bodi Maxi lu nekk si moom lu nekk si man rek daanaka moom la entraînement yu métti yëpp daanaka moom la moom Père Bada muy ñoo ñoo ko def si man was dëgg ba ma nekkee xale ba léegi ñoom la waaw di leen wax ne yal na leen fi yàlla yàggal te tamit euh, mooy loolu lépp loo xamante ni daal euh, ñoo ñu koy ñaanal waaw yal nañu dal. waaw yal nañu dal waaw di wax ne tamit maa sant waa Bawol gépp di sant mbër yi am fii combat yi amul fii combat maa ngi leen di sant di leen ña wax na leen yàlla may waaw di sant waa Bawol bu baax a baax a baax ku si mel ni Riimaaw maaw a dëkk ak juróom-ñaari njëfan paal yëpp di sant Touba Toul bàyyiwuma maas sama mag sama doom ndey Euh, di sant Alatine di sant Sokh ak Sito mafia bi daal di sant ñoom maam jib ñu Ablaye Ndaw ñoom ñëpp Balla Dia Thiaw Star trompeur maa ngi ko sant bu baax di sant Xaadim ñoom Tafa Mbër su ma limbee damay juum waa équipe bépp maa ngi leen sant waaw di leen wax ne combat bi seen combat la waa bawal gépp combat bi seen combat la ndax grand combat la képp koo xamante nii mën nga ma jàppale man jàppale si wàllam billet yi rek man ñaanuma dara wàllam billet rek pour xale yi dem ñëpp dem waaw man loolu laay ñaan. waaw di sant sama mag nag Allah ah maa ngi koy sant bu baax ak maas Pape Fall maa ngi koy sant di sant Jib Gueye bu baax maa ngi leen di sant képp koo xamante ne mu ngi jàppale Mor maa ngi koy sant di sant Ndiaye Lo bu baax Ndiaye Lo maa ngi koy sant ndax moom ma jox oto bu baax a baax maa ngi koy sant waaw di sant sama yaay nag Yaam Fall maa ngi koy sant bu baax a baax a baax a baax aw ma fayam waaw. jaajëf di la jaajëfal. jaajëfal bu baax a baax kon Mor Kang Kang la dalaloon tey. seen si xel ma waxtaan mu am combat le 20 février. war ko a amee ba stade Iba Mar waaw di di sant waa Colobane bu baax di sant waa mafia Colobane bi maa ngi leen di sant ak waa mafia sport bi di sant Assis euh, sama doom day sama téyéer sama lépp am si dollar Talla Fall maa ngi koy sant bu baax kooku moom omo fayam daanaka sama sama xarit la sama lépp di sant Baaj Serigne Daara ñoom musaa Ndiame ñoom Mame Mbaye di sant Mbaye Thiaw ñoom ñëpp maa ngi leen di sant aw ma seen fay daal di sant ñoom taamaagat bu baax a baax a baax ak tonnerre de ok jërëjëf tic tic bu faaya Mor Kanga <laughs>